salaamaaleykum di yours a very very very happy forum maa ngi leen a nuyu uh, si alxames bi man la seen mbokk Modou Sabally di leen gërëm di leen sant di joxe update rek ne ñu ngi si suñ uh, community outreach programme si di leen waxtaan ak ndaw yi si gox-goxaan yi si mbiri politique waaye si mbiri national development tam parce que ñun suñ political platform the NPP under the leadership of his peacefulness President Adama Barrow suñ politics is about development peace reconciliation unity. Euh, dem nañ Bruxelles bi démba ma waxtaan ak ndaw yi foofu euh, ñoom euh, Youssoufa Sanyang ñoom Dawda ñoom Assane Louis and co of course with the invitation of suma sister Rohi Diouf démba lu ma gis Bruxelles bi fees na suma bët ay ndaw yi nga xam ne dañ bàyyi seen soxla bàyyi seen sports ñëw pour toog in a political platform pour discuss about community and national progress quite unprecedented big naa si torop nag di leen gërëm di leen santa name, I share that news feed, encouraging other youths in other communities for new ñu uh, uh, organise seen boppa uh, ñu toog said, seet lan mooy you ndaw yi ñu président Barrow for fulfill some of those needs if not all because def at least the Banjul Women's Garden case is a case in point where problem began nga xam for more than five years moo ko président Barrow in less than one month mu solve ko really it's, it's, it's amazing it's been so transformational I think this could be replicated across the country waaye li ma bëgg mooy ñu organise suñ boppa ñun ndaw si ñun ndaw yi ñu focus uh, on the good and the beautiful ñu dimbale wante ñu seet and then the government will will definitely push your agenda forward uh, Bruce bi li ma fa gis naa si uh, youth leaders organise ay youth sporting academies football teams and other activities waaye tam identify needs yi nga xam ne yooyu ñu soxla to move the positive youth development agenda forward and inshallah something will be done about it ma lay promises but that much I can say uh, Lima ma wax rek boy di ñaax ndaw focus ñu remain positive patriotic ñu receive i gan all over the world uh, let's show the world the good and the beautiful about the smiling coast of Africa, the happiest nation on the continent, led by the continent's most peaceful president. maa ngi ko fii hamne wax Philo of Alexandria moo uh, di wax boo xam ne wax bu rafet very inspiring ma share ak loolu uh, ma share ak yéen loolu balaa ma move on to my next assignments Philo moo households cities countries and nations have enjoyed great happiness when a single individual has taken heed of the good and the beautiful such men not only liberate themselves, they fill those they meet with a free mind. that's a beautiful, beautiful statement. individuals, focusing on the good and the beautiful, and transforming nations into better entities and better systems. loolu nag yomb na pour wax si làmmiñ waaye xëj na mu jafe pour def ko paski que euh, doomi Adama moo doy waar rek soo focusé on lu baax nga farlu si li gën pour ñëpp ak yow di jaama ak lu yiw dina am ñi laa xeex loolu mooy moo mus di am rek Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallam la fi isi lu dul lu yiw ak jaama waaye xeex nañ ko so soo paree pour jël yoon yooyu nag foog nga euh, pare pour taxaw teem daal nga euh, suma imam bi dum ko dee pour fulal ko te sonas yi euh, comme nu ma ko waxee rek am nañ ay exemple solo over the world ñoom Kwame Nkrumah ñoom Nelson Mandela luñ bëggoon rek jaama ak li yiw ak jub waaye lu xew dañ leen xeex so waaye exemple baa nga fa laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kaana yarjullaha wal yawmal axir yàlla jox nañu examples. si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga Napoleon Hill one of the greatest uh, authors and philosophers of all time in his classic Think and Grow Rich One of the greatest example of persistence in the history of humankind is the story of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lan lañu fi isil jaama rek wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin allahu akbar kon di ñaax ndaw yi rek ñu liggéey gën a pare daal pour wane li baax ak li Gambia especially in at the advent of this uh, OIC summit uh, Albert Einstein nag wax na great spirits have always encountered violent opposition from mediocre men So bëggee jël yoon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallam Isa Musa ak nit ñi nga xam yu jara roy Maodo yoon rek di nga am ñuy ñëw pour la waaye des na si yow nag euh, soo ko fulalee nangu pour soona si yàlla fekka la si nga am ndam waaw loolu rek nga see am nag ndam euh, di ñaax loolu ndaw yi pour focus on the good and the beautiful on the positive and spread the good news ñu ngay gis ay lots of negative stuff on social media ñi nga xam ne bëgguñu summit bi baax bëgguñ mu succeed waaye ah des na si ñoom xam naa ne ñuy def loolu minority leen ñun ñu bëgg lu baax ñun ñu bëgg a focus on the good and the beautiful ñun tam suñ spreadee the good word within 24 hours, Nigerians overcome. Just spread the good word. Now, that's not difficult. They will fight you, they will go against you. So what? Albert Einstein and like, great spirits have always encountered violent opposition from mediocre men. But if you are that great spirit, you will free not only yourself, but communities and nations. Consuman Dovi Suleiman Gay, Back then in the days, can a song ethos be Nekut Lubes? It's been here always. Man, I am me, I do me. Time. But back then at Central Bank, so say, man, I was suma suma <laughs> magi denga liberate, denga natural. Lola, I am who I am. I'm not here to please you or to be you to become one what you want me to be. That's why I say kana song dumakonango, I will be me, do me, and I will spread the good and the beautiful by the smiling coast, the happiest nation on the continent led by the <laughs> countries, the continent's most peaceful president, the Giremnak you'd Brusubi around the central mosque, and the football park, especially Yusuf Hassan Young resigned as candidate, uh, former aspiring candidate for PDIS in the Bruford ward, uh, decided to join President Barrow and the great grey party, the National People's Party. jërë engagement, géej man gis ngeen jëf man